est-ce que le le le FMI <coughs> la la la Banque mondiale xam ñoom dañuy ñëw mission. Mm-hmm. Euh, mais quelque part est-ce que ñoom fermé wuñu les yeux en se disant que euh, c'est vrai que le taux d'endettement yéeg na sës nañu presque. Mm-hmm. Euh, bu ñu bàyyi woon sax ñu. éclater ñu éclater plafond bi. Mm-hmm. mais est-ce que du l'exploitation future. euh, prochaine du, du gaz et du pétrole est-ce que loolu taxul mhm. gars yi gëmm en se disant que le pays aura, les ressources pour réserver le déficit effectivement et ça tax ma ne la un financier il ne se préoccupe pas de savoir est-ce ngi mettre ses écoles dans les euh, ses enfants dans les plus bonnes écoles est-ce que mi ngi des dépenses de santé ça c'est pas le du banquier le problème du banquier c'est est-ce que Maïmouna limite ses dépenses pour pouvoir lui payer sa dette c'est ça qui l'intéresse donc quand Macky Sall s'endette à coût à coût de milliers de milliards fait des grands projets mais au même moment on voit notre tension de qui pose problème on voit notre déficit commercial qui pose problème qui sont des indicateurs de productivité que on produit pas on voit le nombre de pauvres qui augmente l'indice de perception de la pauvreté aujourd'hui aujourd'hui le nombre de pauvres du point de la perception c'est 9 millions de Sénégalais qui pensent qu'ils sont pauvres sur 11 ans avec 40 milliards on a gagné 5 points sur ce qu'on appelle la pauvreté monétaire 5 points dong lañ gagné y a un problème mais loolu yëpp FMI Banque mondiale moo tax ñu critiquer ce cadrage là du ko xool moom li muy xool mooy j'amène il faut que je crée des conditions pour que liquidité yi may dugal ak entreprise yi koy réaliser que sama flux de liquidité marché j'amène de la dette cette dette est captée par des entreprises des pays qui sont derrière Banque mondiale et FMI dañ koy capter réaliser ko xaalis bi génn et ah ils disent c'est bon les conditions sont correctes parce que le pays paye et effectivement tey jii suñu structure budgétaire xam nga budget yàlla dafa am dette ak ressources dans les ressources il la fiscalité il y a d'autres formes de ressources mais pétrole bi tey bu ñëwee day andi 600 milliards de plus 600 milliards yooyu dafay dafay améliorer suñu liquidité. dina dina dina le déficit va va disparaître. voilà dina ko dina ko dina ko résorber dina ko résorber même suñu PIB dafay augmenter notre endettement va baisser mais le problème. Maïmouna c'est vrai c'est une discussion de banquier là donc on dit mais le problème c'est que Maïmouna est-ce qu'on va se demander ah, finalement nos cinquante mille milliards là sur onze ans c'est passé par où si on sait que on a plus de pauvres si on sait que l'indice développement humain a connu benn contre performance si on sait que suñu déficit commercial dafa augmenter finalement milliards yi. foofu fan la jaar mais mais mais est-ce que la situation parce que nous appellent. Mhm. mais est-ce que la situation aurait été différente est-ce que du du Covid bi ak le choc de la guerre russo-ukrainienne mhm. est-ce que du loolu moom moo indi tension euh, yi ñu nekk di. di di dund nii. non li ko indi mooy parce que mën nañu jël exemple Wade Wade ba mu ñëwee dafa fekk benn endettement comme ni waxee 53 pour cent. Wade a que bu buggee am jàmm c'est un financier un un économiste il faut que mu travailler ses liquidité muy travailler di baisser endettement parce que plus tu baisses euh, ngay croissance di am toujours travailler encore travailler plus tu fais ça plus tu es liquide moo tax euh, et n'oublie pas que su Wade on a eu la crise financière de 2007 de et ensuite 2011 ko et ça c'était des crises vraiment très graves on a eu beneen beneen pic il a vécu ces deux crises pourtant temps yooyu lan la doon wax ñun crise bi sentiruñ ko parce qu'il savait que l'État était liquide il a il a puisé sur ses liquidités. mais la crise de, euh, le régime de Wade a rencontré d'énormes difficultés. entre 2008 bien sûr la, mais li li tax mu mën assommé mais d'ailleurs bu fekkoon nag. c'est 2009 qu'il a perdu. mais attention les élections. non li ko gën a sonal mooy pétrole bi ah bi moom ça été une catastrophe crise bi bi bi mu excès li ko may mu mën a con mu mën ko contenir pendant deux deux mille huit deux ba deux mille onze li ko may c' était justement sa structure budgétaire gis nga Sénégal structure budgétaire bii ñu am nii endettement bii ñu am taux d' endettement bu ngande bi ak ni muy peser service de la dette fay le travail rek jëlal budget bii ñu def nii nga jël service de la dette yëpp capital intérêt nga xool ko nga rajouter fonctionnement personnel xool les recettes propres tu vas on est dañu teeñ ni comme ni olof di wax dañoo teeñ condition yi gis nga bu ñu fi amaatoon yàlla ñu ci yàlla musal beneen beneen crise bu su amoon là on va souffrir on va gravement souffrir gis nga coronavirus bi bi mu fi ñëwee soulèvement yi fi am ci dëkk bi ak coow yi fi am loolu lay andi tey jii suñu déficit balance commerciale parce que il faut comprendre que quand je m'endette c'est pour investir dans le Sénégalais man je ne par pas contre nga endetté wu pour defar hôpital parce que l'hôpital va avoir un impact sur niveau qualité vie nit ki endetté wu pour tabax ay école je suis pas contre parce que l'école day day préparer nit ki pour mu productif je ne suis pas contre que tu prends de l'argent pour aider l'homme d'affaires ou la femme d'affaires sénégalaise à pouvoir avoir benn croissance économique parce que croissance boobu nga koy may dafay da nga koy récupérer ci emploi da nga koy récupérer ci impôt dafay exploser sa que plus tu mais li ma d'accordul mooy nga leb jël près de près de mille cinq cent milliards def ko ci benn infrastructure terre boo xam ne tu le fais terre bi